yow mi dëkk Bargny ak li ko wër te saa ne yaa ngi jàmbat ndoxum siti yaram wuy xasan yaram bu am taas ak yeneen ni mel wooteel ci numéro bii di 77 409 44 87 Gambio Cité Darmi bi moo ngi jar 10 000 francs ak ñaari junni su dee yaa ngi dëkk Bargny ak li ko wër foofee nga xam ne mooy Bargny OM nga wootee si 77 409 44 87 Gambio Cité Darmi ñaari junni lay jar su dee yaa ngi dëkk Bargny Diamniadio ak li ko wër wala nga dëkk Sébi Xotaan wala Pout wooteel fii nga xam ne mooy numéro bat numéro gën a jege 77 409 44 87. gam bi moom ngay seen ni am na tisane am na saabu am na crème am na huile 77 nga daal di jokkoo ki nga xam ne moo di madame Samb ñu ko dee wax Khady Niang si 77 409 44 87 jaa ngeen jëf.